Cheikh nuyu naa la. waaw bisimilah rahmaani rahiim maa leen di fay bu baax a baax a baax doom nday di nuyu sama gars yi ah di nuyu tamit sama doom nday réparé di ko ne décourage bu amaatee combat yàlla ko suñu borom defal ndam di nuyu sama grand am lycée di sant yàlla bu baax a baax di julli si yonent bi di ñaanal sama papa Mor Faram fa mu nekk gënal ko fi mu jugee sama papa Baye di Seye aussi noonu di ñaanal tamit sama papa président yàlla bàyyi ko fi bu baax la si man di nuyu Ousseynou aussi di leen nuyu bu baax a baax. gis nga woon bëri ci journée bi lan moo waral sa ñàkk bëre tey waaw man de pare naa Assane Ndiaye jox na ma avance bu mot sëkk pare naa daanaka dans trois jour xaw ma moins trois jours lañ ma woo ma sa adversaire daa blessé. ñu ne Boy Seye dafa loolu laa si kese kese barki alxuraanu karim mais nag man nekkuma pour Boy Seye kese man moom instant yi ponkal yi laa bëgg a bëreel. waaw parce que tamit préparer sa lamb liggéeyoo lu mat deux mois ñu bàyyi ba ñu ne la suba la comme am ay trois jours xaw quatre jours ñu ne la sa adversaire daa blessé ma loolu neexul. waaw ak waaj combat ni mu méttee mun naa ne jour combat méttiwul mais waaj bee gën a métti looy gis xam nga tamit dañ ko koy nangul rek waaw di ko ñaanal yàlla may ko tan mais man instant bi maa ngi si leneen. da nga bëgg a bëre ci combat boobu. non man instant bi grand combat bi laay xaar wala Bour Sine mu ñëw ñu bëre wala Gamou Gueye na ñëw ñu bëre amuñu combat bàyyi rek la ñuy bëreel nañ ñëw bëre ñun xale yi. làmb léegi tollatul foofu noonu ay bëre ay mag déedéet ñun xale yi nañ bëre suñu biir feesal stade bi boo fi tegee combat jànk stade bi day fees. mais boo jëlee benn booy boole ko ak benn paa doo am dara ñoom nañ ñëw ñu bëre suñ bërewul léegi dañuy bëre ci kanam te ci kanam day gën a métti si ñoom kon nañ teel a ñëw moo gën Pam Doy yóbbul nañ ko sama avance trois fois na ñëw ñu bëre ñaanu ma ko sens na ñëw ñu bëre man damaa sama def samay preuve wane samay preuve quinze combats laa bëre bëre ma benn combat bu nooy ñi ma daan ñëpp a ngi bëre ay Giro Seras laa daan ay Mamor Ziza Scorpion ay Ndaanaan laa daan ay Boyzil ay sabal la te ñi ma daan ñëpp ma leen daan amaguñ defet daanaka waaw. kon fi mu toll daal ay ñoom nañ ñëw may la chance foofu laa ko teg sama. bon ko lii laa la wax man du ma bëreeteeg sama benn morom sama samay morom kenn laa si bëreel xanaa Bulldozer nekkul dama koy tëkk moom laa la wax laay bëreeg samay morom mais bu su ma bëreewul ak moom samay ponkal yi lañ ñëw may ma chance wala ñoom ñu ñëw ma may leen chance waaw. loolu ci loo ne. waaw sant sant sant sant. mais keroog kenn xàmmewul. waaw lamb la. lamb la lamb la rek lamb mooy demee noonu. waaw ànd ak samay mbokk ñëpp ñëw si lamb ji. yàlla jour mu àndul ak man ànd ak sama adversaire moo ñaan la adversaire ëpp la doole. non wallaahi lazim lamb jooju daa ci ëpp doole. barke Serigne Sall waaye soo waree daanu nag kenn mënu ci dara na ko ndam li jig. léegi foo jëm da nga taxaw xaar. non taxaw ma ne xaar ma maa ngi toog rek. waaw ku ma boole par bu bëre moom waaw. am lii sax nuyu naa la. maa ngi lay fay. li nga daane waaw bi laay gaa dañu ñu bëri na ñu na yow ñu bëri moo gën muy wiir nag naan ay déwén laay bëre ginnaaw déwén laay bëre na ñu morom la ñu neexal ko quoi moo gën mu wër paay rek na ñëw ñu bëri maag moom yow Liss daal nga bëgg bëre Liss morom ci làmb ñoo tolloo doole ñoo tolloo bëre ñoo tolloo lépp ñaan ma ko sax na ñëw ñu bëre Liss yow laay waal kaa ñu bëre tapet nga baax na kon ok